salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi seetaan Mbour TV matinal am neen mbégte contentement jàkkaarloog yéen suñu mbokk xarit internet yi ak ñëpp ñu ñuy seetaan euh, tey nag euh, le alxames ñu ñëw ak yéen ci émission Mbour TV matinal ma àndi seeg ñaari site ayda ak Binta Aïda maa ngi lay nuyu. Djiby maa ngi lay fay Siste Binta maa ngi lay nuyu mbokk yi xaritu téléspectateur internet yi ñuy seetaan maa ngi leen di nuyu di leen ziar di amaat contentement bu baax di jàkkaarloo waat ak yéen ci seen émission Mbour TV matinale comme ni ma koy defee rek damay nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay manti nekk ma lay fekk fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay di ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yi. yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xamante ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen ci seen njaboota ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat nii rek lay demee saa su nekk nag ñi nga xamante ne nii Euh, dañu xëy amaguñu dépense yal na yàlla feesal poos yi ba ñu mën a dundal njaboot gi comme niñ koy defee rek saa su nekk ak la sista Aïda la sista Binta ak Jibi Diop Ndiaye xanaa ci kanam tuuti rek jibi ñu gën a yaatal ñu gën ko faram mu gën a yaatu. jaajëf. Aïda Binta na nga def ça va. maa ngi fi sant yàlla bu baax baax. Mhm. nuyu na la Jib Jib Ndiaye. nuyu sama sis Aïda nuyu bépp téléspectateur euh, Mbour TV di nuyu suñu caméraman bu xess bu ñaawul bi. Zal ak di leen ni rek sen émission la Mbour TV euh, matinal ngeen and ak euh, la Sista Binta ci sen rubrique bi ñi nane Dóor waar mais Aïda dafa am ñaan bi nga faté man ñaan bob lay def ñi am lu borom kër yalla la leen yàlla may borom kër bu baax. ak ñi sa bopp ngay ñaan. <laughs> non du sama bop lay ñaan classe ñoom Jibi Njaay ñi amul euh, jabar yal na leen ah, yàlla may jabar ju baax am tamit yal na leen yàlla may njaboot ju barke ndax la ñuy ñaan si seen amiin ñaan bu am solo yow tamit ah yal nañu yàlla may lépp ñun tamit euh, ñu fekkee lépp incha allah émission Mbour bi matinale Babacar lañ ci àndal waaye tamit euh, dañ ci àndal Binta Fashion ah Aïda moom moo nekk sponsor bi nga xamante ni moom mooy ànd ak ñun si émission bi moom image yi nga ñu gis si sama ginnaaw nii ci écran bi moom mooy daw Binta Fashion nekk ak boutique bi nga xamante ni moom mooy jaay mucc ayib ay barki démb démb sax ñu bari woo neen ma naan ma yéen boutique bi bëgg neen xam fu mu nekk xam naa après dañ si la ñuy àndal si régie côté xibaar yi lan nga indi tey ci information xibaar euh, tey ci alxames xibaar yi dañ koy door ak euh, Kër Martin nekk ci région bu Fatick. dëkk boobee nag ak dëkk yi nga xamante ni bii yëpp ñoo ko wër la bëgg nag mooy ñu amal leen yoon boo xamante ni bii dañ koy goudronné yuxu nañ nag wàllu jëmee ko ci kilifa yi ne bañuñu ci ba lànk bañ a ci élection yi nga xamante ni bii moom la ñu dëgmal. Sali maire ba di Ousmane Gueye dellusiwaat na ci bilan bi nga xamante ni bii def na ko diiru li mu nekk ci boppu mairie bu Sali ci wàllu nag santé éducation sport ak yi ni des na ci ànd ak moom ci kanam tuuti lay doon. usine buy liggéey glace moom la ñu taxawal ca quai de pêche bu Mbour ngir nag jàppale ñi nga xamante ni bii ñooy mareyeurs yi ñu am foo xamante ni bii fa la ñuy denc seen i jën Babacar Gueye Babacar Gueye conseiller technique la ca ministère de la pêche ak économie maritime moom nag moo fa teewloon ki nga xamante ni bii mooy jëwriñ ji di Omar Gueye des na ci dikk ci biir xibaar yi. ñu ñëw nak ci émission Mbokh TV matinale ci li nga xamanteni ni moy rubrique yi rubrique Dóor war lañ koy ñëkke muy rubrique bi nga xamanteni nit ñi mom lañuy faral di def chaque jour sa yo xëyee génn sa kër li ngay ñëkke def moy liggéey te liggéey mom moo yor nit liggéey mom moy indi teranga nit liggéey moy tax nit ñu jox ko cadre valeuram donc rubrique Dóor war Binta lañ ci andal mu ñu indi chaque jour ban rubrique ban Dóor war la indi muy tey alxames ban rubrique nga indi Dóor war ah tey moom rubrique bi ma andi moom ñu ngi vacances vacances oblige tey dañuy daal di pousse rek euh, ñu dugg ñi nga xamante ne ñoom ñooy sportif rawatina euh, arbitre yi parce que tey euh, ji bi loolu moo fa ñu wax ci bu baax seen koñ dañ leen dóor xanaa dem nga mere arbitre yi wala nga kontaan ci benn arbitre hmm. mais rôle bi ñuy joué man loolu dafa may jaaxal hmm. parce que métier boo gis rek man dama yaakaar ñoo xamante ne duñ ko mokkal parce que hmm. métier boo jàng nga mokkal ko yenn yenn yenn jugement waroo ko def surtout lu jëm si wàllu sport metti na yàlla ñoo xamante ne di jaral lépp. Mm-hmm. nit ki def sacrifice ba nar a gagné. Mm-hmm. yow arbitre am di ko sàcc parce que. Mm-hmm. sàcc day am si arbitrage. waaw man la loolu dañ ko fiy gis man dama yaakaar ne dañ leen di fay xaalis su dee dañ leen di fay xaalis loolu warul warul am ndaxte yow métier bi ngay def da ko war a fonk. da ngay fonk sa métier métier bëgg ko boo ko bëggee da nga koy jox gëddam da nga koy jox li nga xamante ne loolu la yoon laaj. Djibi Diop Ndiaye tey loolu mooy la nag Binta même bu ñu leen di jox xaalis timi risque la ngay arbitrer ko xamanteni euh da ngay match day am nga arbitrer match bi ba pare gaay yi dila la di ay dóor yu metti dila dila dila la di la risque la mais duñ jup Ah. arbitre parce que duñ jub loolu mooy problème bi duñ hmm. jub tey ji jub Diop Ndiaye hmm. moom laa faral parce que koñ boobu laa dëkk moom hmm. moo war a gagné marche bi alors que c'est pas comme ça lépp looy def rek na nga jub rek su ko defee yàlla dala ciy jàppale mais de euh, coupe d'Afrique yi da ngay gis match boo xam ne dalay leer ne match bi arbitre bi mooy yàq moo ko yàq moo problème boobu am Sénégal du Sénégal kese parce que foo génn rek problème boobu monde entier la ah, eh, ma ne am na arbitre yu baax nag yu arbitre normal match yi ah, c'est que am na tamit boo yoo xam lu nekk loo gis lu nekk njuuj njaaj da caa am mhm. liggéey boo mënti gis mhm. am na ñuy jubal am na ñuy njuuj njaaj mhm. loolu moom fépp la nekk àdduna gépp tey xam naa ci domaine boobu rek laay xuusandi man tamit dina gën a yaatu ci kanam dina euh, waa su ko defee da rek euh, ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy supporters yi parce que bu match neexee ñoom ñoo ko neexal mais bu yàqee tamit ñoom ñoo ko yàqal. Hmm. supporter arbitre arbitre boo gis rek mère de famille la soit mu nekk per de famille. Hmm. parce que arbitre jigéen am na. am na effectivement bu góor tamit am na. nañ leen jox respect boo xamante ne moom lañ moom. tey ji nit ki bàyyi léppam. am liggéey bi nga xamante moom la fonk ñëw taxaw nga koy saaga ndey ay doomam yi taxaw. ci neexul si xol. moo tax ma ne la la risque bu métti la waaw risque la boo xamante mm. a mm. mm. moo ko yi dañu régler ñi xam li nga xamante ne mooy seen droit. effectivement liggéey boo gis rek droit la ñoom am nañ seen gëdd parce que dañ leen di jox seen la de parce que supporters yi ñoom ñooy lépp tey équipe nationale buy dem football fee day ànd ak supporters yi ndax mm-hmm. ñooy neexal marché bi mm-hmm. mais ñoo koy yàq tamit nañ def loo xamante ne loolu mooy seen nañ yem seen place daal man loolu laa leen mën a wax nañ yem seen place su ko defee Sénégal day neex su ko defee sport tamit tey neex ndax mm-hmm. foo la ak ree moom mooy match nawetaan waaye tamit arbitre yi aussi ñoom tamit ñu xool ah, éthique ak déontologie maanaam li nga xam ne moom nga jàng nga ne ko tari ci terrain bi mais arbitre xam la nit dafay juum donc euh, li nga war a juge buñ ko joxé dossier da kay renvoyer di xol di seet di seet mais arbitre yow ci faute bu mu amé ci fraction de seconde fa nga wara tirer sa conscience mayu la ngay xalaat fofu non temps yi sax commencé nañ fay def ay affaire de vidéo mais vidéo yegg seegul fii nii nga xamné moy mooy nawetaan mais nawetaan dafa nek match yo xamanteni tay bo ci djoumé rek suba gaay dañuy xëy sa buntu kër taxaw di la xaar ak yett mais nañ def attention rek loolu nañ def attention ji bi hmm. looy def lu ne ñoom ñeent lañ hmm. euh, parce que des fois football bi xaw a tàng mi bu jotee ñu gisee lii ak lii la ñu war a def mais da ngay gis koo xamante moom day lànk tëdd ci suuf parce que am na lu mu yaakaar parce que li may gañe fii loolu moo tax projet bi may gañe fii tey ñii suñu gañee dañ may jox dara nañ respecté seen liggéey su ko defee dinañ am jàmm ñi nga xamante ne xaalis moo leen di gënal lépp hmm. moo tax damay faral kii yëpp su ma paree ñu jox ma dara arbitre yi léegi moom loolu looy seen yéen la tay tey ngeen tek yoon mbir mi ci yoon waye timit yéen supporters yi nga ñu am conscience su arbitre ñu arbitrer donc loolu su amé rek yakarna équilibre boobu amé problème dotul am ci terrain bi te nit ñi dinañ mëna football foo parce que football foo la timit fête la fête la donc euh, final bu amé wala nawétan bu amé ñu football ko ci jam je pense que tay li nga indi am na solo muy arbitre yi donc arbitre yi ñom dinañ la dégg te timit xam naa aussi euh, supporters yi sétane match yi ñom timit ku ci nekk amna ci rôle rôle booy joué merci Binta Aïda ñu ñëw ci euh, société. projet bi tey nag euh, société moom euh, damay daal di xuus rek ci li nga xamante ne nii moo am fépp parce que wax naa la ko sànq nee naa la liggéey boo gis am na njuuj njaaj njuuj njaaj bi nak tay damay ñëw ci côté bo xamantene bo démé tay di wuti extrait wala nga dem di soxla ben papier wala nga dem fu ci melni hôpital di rang da ngay xëy da ngay gis ku xëy 6 heures du matin durant durant ba presque 14 heures wala midi et quelque nga gis koo xam ne fële la jóge yor otom bu luxe parce que li ñuy wax àdduna xaalis a fi ne boo amul xaalis kenn du la respecté day yor otom bu luxe jóge fële ñëw gaare bu ñëwee dafay fekk foofu fees dell la muy ci hôpitaux yi muy ci poste de santé yi muy ci euh, maire yi fépp la am préfecture fépp la am da ngay gis courant ba sonn nit jóge fële gaare otoom su ñëwee benn coup de lay paase rek ñu ne ko paas ma ki ci port bi bu joxee ki ci porte bi téléphone bi dañ koy bàyyi kenn du ko téye boo xefee sax ki ci porte bi moo koy guidé ba mu yegg ci bureau bi mu jëm ñëw fekk gars yi rang toog ñëw fekk ñun ñuy rang yendoo rang suba ba ngoon mm. jot. Mm. nga ñëw dagg rang bi yow da ngay ñëw rekk dugg nga gis koo xam ne nii dafay def analise wala mu soxla benn këyit dafay yendoo rang suba ba ngoon jot. vraiment yegg si ba rangam jot ñu renvoyé ko ne ko demal ba suba. xanaa xamoon ne Aïda ñun ñoo sonal suñu bopp. Hmm. lépp da ngay jël exemple ci sa jëmm boobu parce que tey ji imagine toi tey Aïda am Binta amul ngeen ànd fenn bëgg a jënd lii man la lii laa am. mais Binta le bokkul mais non la. hôpital hôpital c'est logique nga dem fa. du logique léegi mu ah. logique mënul am parce que jaa doole la ñuy jaay. <laughs> non mais loolu kon kay c'est grave Aïda loolu loolu il faut nga. non da ngay ànd ak nit fenn di jib jëm njaay tey hmm. da ngay ànd ak nit fenn nga hmm. bëgg a jënd dara nga ne lii man 300 la am borom ne la 500 nga taxaw kenn mu ne la wa man jaay mako 500 lool mo fi nek mais hôpital mom accès accès à tout lool lool la ñuy doxalee parce que doole la hôpital la lu parce que dama am hôpital ak fepp fo xamantene ni hmm. état mo len fa tek hmm. mhm. effectivement warta am mhm. njut njaaj wala par parlo hmm. parce que état mo la fa tek ah, mais ñom ñoo yak amo droit. Mhm. sa dom bi nga jur sax bu ñewé dafa wara rang. effectivement dafa wara dag dagg ticket. parce que ticket boobu muy dagg. Mhm. ci lañ lay fay. Mhm. ci la ñuy def yenn frais yi ci biir hôpital bi. Mhm. wala yenn frais yi ci lañ koy def ci biir poste de santé bi. wala yenn frais yi ci lañ koy def. ci biir mairie bi. parce que lépp ci sa dëkk lay duggaat rek. ticket ba ngay dagg ci sa dëkk lay duggaat. parce que tey cas urgent mën na am. su ñëwee xamuñu ay mbokkam. ci keesu hôpital bi la ñuy jël faj ko. faj ko. bu mairie même chose. Mhm. dinañ fa indi nit des fois. Mhm. mu am problème mu këyit. mais papier ba ñuy jël dila ci tamponeel sa tour ci caisse mairie bi lañ koy jëndé. problème yooyu muy am sax. yi gën a am yi gën a am sax moom mooy lijjanti kayit hôpital Binta tey mun na dara dalu ko day dem wuti kayit parce que day def benn examen loolu lay loolu lay ay gën a insister maanaam temps bi muy ñëw toog di keneen jugee koo fee waaw keneen jugee koo fee Binta perte yëpp la hmm. loolu la bëgg nag mu daj ci société loolu laa bëgg mu denc fi hmm. gis nga nit hmm.

Mhm. suba mu bëggaat pertaat même journée. ak coono bi waa kooku bu bu fa defee une semaine papier bi muy lijjanti sortiwul mbaa salaire weeram du jeex. Sénégal lijjanti fi papier moo gën a métti. dinañ la jaabanteloo yéeg wàcc yéeg wàcc. Mhm. façon signature bu nekk dinañ la ko laaj. Mhm. te des fois dinañ la wax yoo xamante ne nii doo ko sax soxla. tribunal nag boo ñëwee. fa lañ la koy tegalaat. utloo waat la beneen kayit. ngay hmm. dem di ñëw di dem di ñëw ba mujj gi yow mi ci sa bopp da ngay découragé. turbinat la gën a métti. turbinat la gën a métti da ngay découragé ci kayit bi ngay wut. Hmm. moo tax ñu ci bari utaluñu seen doomi kayitu juddu. Hmm. parce que dañuy dem ba. dañuy war a dem tribunal suñu xalaatee yéeg beeg wàcc bi ci koo xamante ne ni bu xëyee mu ngi daw lu mu jox njabootam. pour mu nekk yu lay utloo audience. tey nga xëy yor sa siwo

ñu sa doom du am këyit. ñoo xamul suñu droit. sa doom du am këyit war na sénégalais bu ne war naa am war naa am droit. mais Binta mën na nekk droit sax mais question de conscience la nit ni nga war a liggéeyee. Euh, jibi man dafa am ñoo xam ne yow la sax nga def ko. xam may bañ mooy man su dee man la li may def. Hmm. kon bu ko keneen defee dinaa wax mais dinaa xam nan lay waxee. Hmm. bu dee yow tey la Djibi Diop Ndiaye ma ànd ak yow Djibi Diop Ndiaye journaliste la waa ñëpp a xam. mu ànd ak keneen koo xamante ni kenn xamu ko dañ lay bàyyi yow nga jàll mais doo dangay dellu gannaaw. Hmm. suñu la bàyyee nga dugg dangay bu dee rang am na. Hmm, mais nga jël exemple ci sa bopp. man hmm. lan lan ngay def ak naka nga war a comporté woon nit ñi ñoo ko war a dindi ndax lépp lu. dëgg la moom conscience bi ci nit ñi la d'abord ci nit ñi la. man moom su ma demee bu rang bi xatee damay jéem a xool nan laay def. ba ba mën a jàll

ñu xoolaat la jokkool ak Kër Binta Fashion Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement ou ci États-Unis directement devant seeti Kër Fashion chez Kumba gérant Bidi, Ahmed Bibindiaï, et ak Bourel Gueye Vous avez vous numéro de ngay numéro téléphone Bidi 77 987 58 37 77 987 58 37 kooku moom Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71 Kër Binta Fashion chez Kumba am nañu boutique. fii ci place publique bi waaw boo ñëwee ba ci place publique bi rek laajteel Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi ou le di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 987 58 37 le 77 774 60 68 le 77 021 55 71 Les luy matériel bu jógee fële original waaw yaa xam yére la dàll la la greffage la perruque cheveux naturel la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ay classe la yoo ngi Dubaï wala États-Unis directement Fashion chez Kumba moo leen di may seen émission TV matinale gis ngeen publicité boobu ak Fashion yu ñëwaat rek ba ci li doon parce que man ji bi des fois damay jàpp ne ñi ñuy teg ci poste yi la ndax kilifa gi ki nga xamante ne moo chefé des fois nit dina ñëw expliquer la loo xam ne ci fi nga ci fi nga nekk danga naan amul ndax ñi ma fi teg ñoom ñooy def loolu man dama jàpp ne ñi nga xamante ne dañ leen di jox métier ñu nekk ci di ko liggéey ñoom ñoo joxul métier bi gëdd parce que nit ki defe naa li ngay teet li nga xam ne yow ci ngay tedd ci nga yaakaar salaire pour dimbali ci sa famille dimbali ci sa waajur kon defe naa danga ko war a fonk en matière de travail amul mbokk man bokk man noonu laa ko jàppee de en matière de travail am na fu muy toll amul mbokk parce que tey boo jëlee Binta sama sœur la Binta ñëw na soxla dara damay jug ci sama chaise bi ma toog ci sama bureau dem lijjanti li Binta soxlaam dugg dem lijjanti sama patron jaar na sama bureau fekkuma fa def naa ko benn yoon noté na xaw ma ne jaar na fa suba ma ñëwaat beneen mbokk amaat soxla ma jógaat duggaat ci biir lijjanteel ko soxlaam bàyyi sama biro ñin ñi toog di rang chaque jour ñu gis ko chaque jour nga toog ci bureau di rang ki nekk ci bureau bi di la romb gauche à droite di dugg di génn te du nekk li nga soxla lay lijjanti de mbokkam moo fa ñëw wala jabaru sëram moo fa ñëw am lu muy soxla mooy dugg li jëntil ko dugg di génn di dugg di génn waa ba xëy trois fois nga def ko mm. ba sa patron remarqué la ci loolu nga xëy rek mu dàq la est-ce que sa mbokk ya dinañ la wutal poste boo toog mm-hmm. est-ce que ñoom saleer ba nga doon am dinañ la ko fay bu subaa ñoom dañuy xëy di liggéey yi di la romb nga naan pourtant li yokk a tax ñu dàq ma de ñoom ñi ci lañ bokk. di mere sa famille te pourtant ñoom defuñu la dara de boo amoon mat gu doy ni ku ci ñëw am soxla. këyit mm-hmm. nga dugg ne ko place bi fële la fële ngay dugg fee ngay njëkkee fii. mais mu dem defali ko boppam. mais da nga ko naan toogal ci chaise bi ma ñëw nga teg ko fa mu toog. nga defee ne loolu ak mbaax la. Mm. du mbaax de mm. yaa ngi lor sa bopp te xamoo ko. jaajëf ayda jaajëf leer na naañ ñi dinaa ñëw jox la solution parce que li ngay wax nii dafa am solo mën na bañ a yem sax tey fii mun nga ko yeggali suba parce que lii moo am ci société bi nit ñu nekk dinañ la wax ne la ayda li nga wax nii kat man dund naa ci tel chose dund naa ci tel chose chaque jour moom mooy am donc nit ñi dañuy dem ba seen xol di jeex waaw parce ñun bi boo gisee ñuy insister di wax mhm. parce que dañuy dem mhm. ci hôpital yi ah, dañuy yóbbu suñuy rakk mhm. des fois yow ci sa da ngay wala sa sœur nekk fa wala sa mbokk suba nga dem mairie mais da ngay gis d'accord li nit ñi di dund da gis des fois da nga gis ñoo xam ne bu ñuy génn ci bureau surtout hôpital dañuy jooy day metti quoi ci ñoom d'accord parce que da ngay rang suba ba ngoon jot ñu ne la rajo bi amul

ah Djib Diop Ndiaye ñu ngi si nawetaan rek na supporter yi ànd ak dal rek. Mm-hmm. parce que dal dal mu la mayul du la ko xañ. Mm-hmm. ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy arbitre yi nañ gérer li nga xamante ne situation. bu mm-hmm. amee nañ xam nan lañ koy gérer parce que ñoom mënuñu yem ak supporter yi tamit. ndax bu dara ñoom jàng nañ seen métier. te ku mokkal sa métier war ngaa mën a taxaw nga wax war ngaa mën a taxaw nga war ngaa mën a gérer. li nga xamante ne mooy sa liggéey. conseil boobu laa am solution boobu laa pour jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy arbitre ak supporter yi. jaajëf su ko defee rek gërëm ñëpp sant ñëpp. jaajëf leer na naa ñi ci mbirum arbitrage yi kon mu ngi noonu arbitre moom liggéey bu am risque la waaye tamit boo ci nekkee war nga mën a xam ne li ngay def nii dafa war a mën a jaar yoon te su jaaree yoon rek yaakaar naa ne nit ñi duñ la yàpp te kenn du la kenn du la xas duñu la saaga te tamit loolu moom mooy nit nit ku nekk foo dem rek waneel sa dignité ak li nga xam ne moom mooy sa responsabilité ñu ñëw solution. problème bi moom xam naa suba moom faa nga ñëwaat. waaw problème moom ji mënuma ci joxe solution tey. waaw dama ciy teg sama baaraam hmm, rek. Euh, daal di bës bouton jees bi bu subaa ñu daal di ci yeggaliwaat. Hmm, hmm. parce que problème yi bari na ci hôpital yi. bari na ci poste de santé yi. bari na ba euh, lu ci mel ni mairie préfecture. fépp la nekk parce que foo dem rek. ñun ñaa ngi kaas ñun ñaa ngi jooy. des fois da ngay gis magum jëmm day jékki rek jóg daal di aalu. kilifa. Mm-hmm. ne lii du dëgg du yoon ay mm-hmm. mag yi jëmm xëy di ran suba ba ngoon jot. Mm-hmm. ngeen ñëw di dugal ay xale yu ndaw. ñu faj seen soxla génn ñun ñu toog fii di ran. mais ana ana ana ana ngëm-ngëm. ana nuñ koy waxee comme xaw ma nu ko nit olof di waxee. dignité. parce que man li may liggéey ji bi du ma nangu kenn yàqal ma ko. effectivement. parce que des am na yoo xamante ne nii àq lay doon sax. yow mi nga xam ne yow lañu burleer nga dugg. yow boo génnee war ngaa tiit parce que làmmiñ yépp yemuñu li olof naan làmmiñ day lekk xorom parce que boo génnee liy dal ci sa kaw yépp xamoo ko. dëgg la moom war ngaa moytu bu baax mën nga génn li ñuy wax naan. tombe moo waral ay gaaf nit mën na la ñaan yàlla foofu nga génn rek ndogal dal la. Mm-hmm. doo xam. mais yu bëri war nañ ko di éviter. Mhm. bu subaa rek dañ ciy gën a xuus mu gën a yaatu. Mhm. li nga soo rafet na de ah. waaw tey nag sama man dama bëgg nga jug. nga jël ci kaw ba ci suuf waaw jël ko jël ko Binta <laughs> daal di ah. génn nag ak man fii daal di may defal bas large bu baax. Ah, plissé waaw moo génn ci haut bi. Mhm. nga sama sama ceinture fi ma ko takk. jël ceinture dara fayu dara fayu ko. waa Binta Fashion nag moo génn ak man fii. numéro téléphone bi mooy affiché noonu ci suufu écran bi mm-hmm. defe naa képp ku bëgg lu baax rek yéen xale yi dem man de ñu ma woo démb di ma laaj Binta fashion gars yi woo neen ma naa ma mais Binta fashion ah? ma maa ngi nii def longue manche mm-hmm. te taxul ma yëg tàngaay bi parce mm-hmm. que coton la 100 pour cent couleur tubay yi nag am na couleur yëpp lu ci waay soxla rek boo wootee ci numéro boobu affiché dinañ la ko livrer Binta fashion mu ngi noonu mooy suñu sponsor bi nga xamante ni moom mooy émission TV matinale. dem yu rafet lay jaay yu moins cher yo original comme ni di dañ ko ci conteneur indigo dañ fañ ko rek lañ ko rek paqueté ko ci pour ngeen ko sol à tout prix nga Fashion marché central bu Mbour ba ci jardin bi rek bo woté ci numéro des ni di défilé ci écran bi di prix moins cher Binta émission bi jeex na ñu xanaa gërëm ñëpp euh, sant ñëpp euh, ñi seetaan euh, suñu émission Mbour TV matinal yàlla borom jàmm ku mu nga am jàmm yàlla ñëpp am jàmm Sénégal am jàmm su ko defee rek dund bi daal di neex mais liggéey bi waa c'est ça. Ah, <laughs> voilà à <laughs> merci Binta beneen jour suba nga indiwaat beneen job ah. ñu gën ko waxtaanee ayda émission bi jeex na. waaw dama leen di gërëm yéen ñi ma bokkal sama plateau di gërëm sama caméraman yeeg sama technicien yi waaye di jaajëfal képp koo xamante ne ni yaa ngi bàyyi sa yitte yëpp di toog di seetaan suñu émission Mbour TV matinale comme ni ñu koy defee rek saa su nekk xanaa jibi comme mënuñoo gërëm ñëpp. dañuy dal di teunk rek dal di koy tëj bu suba tay moom wax deug yalla awma kuma ku ma gërëm gërëm naa sama famille ñëpp bañ bala ñoo coupé nga na mais ma ma ma gërëm naa sama famille ñëpp gërëm na ñëpp wa hmm. kay damay ah. gërëm mama awa jaña <laughs> ah, damay gërëm rek mama awa jañ diko wax ne contane na bu baax parce que gis na yobante bi merci beaucoup jërëjëf bi wax faté na amon ah, na yobante ci yaw wa kay monsieur mbeng nee dina ma bolé ak yaw moko wax devant tout le monde wa sa sotnos ba wa nee na ma nel ci bi dina la bolé ak moom. Ah. waaw kay. monsieur Mbengue man xamoon naa ne di nga ñëw ko parce que waaw parce que am na yoo xamante ni nit moom ah buñ buñ la ko waxee fii nii rek il faut que nga wane sa bopp man xam naa xam naa la monsieur Mbengue maa ngi lay xaar Mbengue Mbengue maa ngi lay xaar. waaw ñëwal rek merci beaucoup Aïda monsieur Mbengue ñu ngi lay nuyu bu baax di la teral bu baax a baax a baax ah di la di la di la laaj sa wàccuwaay jërëjëf euh, ci seetaan bi ñuy seetaan aussi euh, di leen jox dig daje suba jàmm vendredi ci beneen émission Mbour TV matinale ciao ciao